jàmmaarloo yi fi jotoon am ba yenn ci station de service yi ñu jot leen toj a ko yàq loolee nag tax ba ndaw yi liggéey ci yooyu les station indi ci ab njàngat gu sori ci noonee yoon tagaate loxo Ousmane Sonko ñoom ñi jëngu ci bile secteur woote rek ab bër ngir dankaafu yooyu les événement ñoo ngi station optimum fii nag bile bër ñu ngi koy wëyal lu koy firndeel mooy mujjewul jënd essence mu nekk lu nga xamante ni mu ngi koy nakarlu dina xaw a métti parce que dèjà man fu ma jógee dafa sori maa ngi war a demaat ba côté der dërkale bi nii léegi fu mu toll nii suy àpp la xam nga léegi yaa ngi gis commencé nañ jaay jékki-jékki dem ba si biir ne arrêté nañu ñun ñun ñun la ñuy gën a sonal rek bu def tamit dañuy sóoraale automobiliste mobiliste si moo gën waaw parce que am na ñoo xam tamit seen euh, amuñu njëgu def plein mais comme par exemple nii nii nii c'est un peu compliqué keneen ci client yi nag gisa it noonee ndaxte rek moom fii di Total Énergie la tàmmoo ñëw di jënd essence tey nag mu ñëw rek fekk ni agent yi liggéeyuñu mais bi ma ñëwee bëgguñu ñu jaay quoi bon par par peut-être euh, par mesure de sécurité bon la ñu wax parce que dañ ne ma dañ ne yaa une communiqué bu génn boo xamante ni donc c'est pour trois jours. non man léegi laa ko yëg parce que dama ñëw di jënd essence ñu ne ñu non du ñu jaay essence donc léegi laa ko yëg quoi donc bon après c'est c'est c'est c'est une surprise. mu mel ni nag bile bër yéen ci station yi topp ñu bi leen digal loolee rek la ñu nemmeeku ca Star Hall ndaxte fii rek service baa ngi wëy comme say su nekk. waaw ndax ñun waxuñu dara. ba léegi ñun ñu ñu ngi jaay xëy na tamit ñoom station yu koy def ñoom xëy na yooyu gérant libre la tamit ñoom boo xoolee ñoom ñoo gën a sonn tamit ñoom bu ñu sakaari seen station ñoom ñoo gën a sonn tamit waaw nit ñi moom ñu ngi ñëw fii soo ba léegi moom ba léegi nii may wax yow ndékkee gu sax ndax maa ngi si jaay bi ba léegi di fàttali ni rek ci ab bataaxale bu ñu tabb ni ki samedi la jëwriñ bu ñu dénk wàllum pétrole ak lu ñeel énergie doon rek xamle ni service yi station yi rek daañu rek gër li ko tàmbalee talaata ji ba alxamis la ko bu rek mooy mën a maytundi ak mucc ci yooyu la toj ak yàq yu gën a di def saay su xew-xew amee te mu ñeel Ousmane Sonko di njiitu si gi